déjà diko évoquer ci dossier bi nga xamni danaka que dafa melni dañuy insulter notre intelligence. di de suñu déjà ñun gatch bu reuy la am bu ñu ci ay émission yu mag am ñuy seen intellectuel di insister ci test ADN bëgg gëm lo yenn ci sénégalais xamul que test ADN tax dossier ñuy wax c'est faux. amul ay tappale ki manipulation la d'ailleurs bokk na ci li tax ñu gën a def vidéo bii ngir leeral mbiru testade ni ngeen di dégg débat bu comploteur yi tëgg la ab dëgg sërëx la en complicité ak seeni média de propagande bu ngeen amee tuuti seetlu Ousmane Sonko dafa dem jàkkaarloog Maham Diallo jox ko toutes les preuves ak personnalité yi laale ci dossier bi ba ci rapport bi gendarmerie defoon daaw ci càkkuteefu general Jean-Baptiste Tine te rapport bobé deugal ni li complot d'état bu reuy reuy la mais lan la média de propagande yi xey wax du ñëpp nak ndax amna ay média yu crédible Sénégal waye noné itam la amé média yoo xamni ni mo leen di financer di leen dicter seen ligne éditoriale lu ñuy bind ak lu ñu warte bind légui au lieu que yenn ci média yi xeyne ne dang à la une complot d'état bi nga xamné ay ponkulum jëm ñoo doon foy la république bay bakani bakan des ci dedet waxuñ ci lolu dañ ko ignorer journaux palais bi dañoo and déggo ci ben une muy songo dafa baña def test ADN dañ leen di rek jox exemple aktif journaux yo xamni ñoo gëna actif jamono ji ci walu propagande tay ñaan ngeen bayi leen xel benn bi mooy les échos bu Cheikh Oumar Ndaw complot état yëpp la ko tàmbali ci dossier imam Ndaw ba tey bokk nañ ci ñuy gañe marché manipulation yi lëndëmal askan wi ñaareel bi mooy lii quotidien bu El Hadj Ndiaye ñetteel bi muy journal La Tribune bu Bougane ñeenteel bi di journal L'Observateur bu Youssou Ndour ñoom bañ na ko ba yemun ci lii waaye le lendemain dañoo xëyaat de défendre autorité yi làkku ci complot bi voyu yi nekk ci état bi ñu ne waruñu di leen joxoñ baaraamu tuuma ndax dafay nasaxal république bi lu tax nag journal surtout format papier yi doon lu garaaw mooy revue de presse te revue de presse un genre journalistique la boo xam ni mu accessible ci Sénégal est neex a déglu mais malheureusement du xóotal yëf ba kiy déglu xam ni mu demee. donc sénégalais yi amul jotu wëri xibaar yu baax ci internet wala dem lire ay investigation mbaa déglu ay débat wala chronique pour xam li xew dëggantaan ñoom bu ñu déglu revue de presse rek rawatina xibaar biñ naan fàng ci kanam te duñ ko leeral bu ñu amul une analyse critique di càmbar loolee mën naa jaxase seen xel yi te bu ngeen seetloo journaux palais bi. surtout ci dossier aji sar bi effet bi lañu rechercher lañuy wër lëndumal xel yi parce que buñu ñu Ousmane Sonko dafa lank baña def test ADN kiy déglu te xamul luy test ADN surtout buñ ko gëmlo ni test bobé dong mu mëna tax yi fi leer ko amul ki déglu te xamul daf nan kon waji kat li tax muy baña def test ADN bi dafa am lu muy neub mbir yi amna les waxul motax ñu bëgg ci ñëw indi ci ay leral wone également que ci dossier bi ni test ADN amu fi place faux débat la bu pale bi organisé en complice ak seen média de propagande fan lañu tek lolé ci lañu ñëw détail par détail doré ko ci fi yëfi tambalé liñu war ñëk dut baram ci dossier bi te li ñu seetlu rar na gaay di ko leeral souvent moy aji sar dafa nax dafa wax lu dul dëgg ñi ko yónni woon biñ koy jël di ko yobbu hôpital ngir wutul ko certificat médical ba paré yobbu ko mu porter plainte bés bobu aji sar waxu len deug ndax li jitu jour bobu nonu wajal nañ ko préparer ko pour mu dem ñu tëddee ko manam li mo doy war ci dossier bi te waroon tax ñu classé ko depuis daaw Sénégal yëpp am jàmm ndax caaxaani kese la mësul am ci na ku ñuy violé koo xam ni moom mooy lijjanti di sàkku nuñ koy siifee ay Mamour Diallo Sidi Ahmed Mbaye Dior Diagne ak maître Gabi Sow wër ko di ko conseiller pour que Adji Sarr préparé wu ci kañ nan ak ban anam lañ koy tëddee bañ na ko ba bi complot bi di door bi Sidi Ahmed Mbaye di propose Adji Sarr deal bi naan ko comme que Ousmane Sonko seen institut lay maase woo benn waay waajoojee di Mamour Diallo noppi na ngir teg ci taabal bi ay millions ba pare ñu yóbbu lañ ko tukki ngir rek nga tuumaal Ousmane Sonko moomee wàllum viol période boobu noonu benn audio Adji Sarr fuite woon na muy wax ci proposition biñ ko defal ak lim ciy ragal ça bon xalaat naa si affaire yi et je suis prête en fait mais j'aurais préféré toog ak yow ak kooku ñu waxtaan tout sa kon ko instant bi nag nekkoo fi xaw ma nu muy demee mais bëgguma jël benn risque di envoyer vocal et tout ça mais loolu. mais Ameth xam man la gis mu gën a yomba ah? di jënt numéro Ousmane Sonko. naa ko temps laa soxla mais le reste man maa bëggul ay ay ma génn si ay journal wala yeneen a génne wóor na ma su amee sama photo dina génn comme photo gel bi nu mu génnee yooyu laa bëggul léegi yow xoolal rek la ma la wax nii. Ameth man damay xalaat ñi ma xam ñu nekk ci état bi yëpp gis nga loolu su xasee ba jàll kenn dootu la ñeme comprendre nga ñëpp dinañ naan ni gel bi nii gel bi naa man yooyu lay xalaat yooyu lay sóoraale billaay. waa kon may ma jël sama temps may ma jël sama temps dégg mbir yi amul lu ñu waajal la rax ci dolli ay fani fan yuy rëbb Ousmane Sonko biir Sweet boote ci complicité wu général Moussa Fall ma fa yónnee woon élément ngir bu Ousmane Sonko yegsee rek Adji Sarr tapas ko yuuxu ñu jàppee ko ci biir institut bi yóbbu kaso su ko defee du am temps expliquer l'opinion kenn itam du ko mën a layal ndax dañ naan lan la fa doon wut lii moo ne woon plan bi moo tax fan ngay xamee ni affaire bii mbiru yàlla dëgg da cee rax jamono gi ñu doon rëbb Ousmane Sonko yëpp jour yooyu dëggu fa tànkam dafa raar ba ndaw sëñ ne dañ ko violé muy Adji Sarr mooy dem ci borom këru patronam di ko laaj kañ la Ousmane Sonko di ñëw kiñ ne dañ ko violé mooy wër yàkkamte gis ki mu wax ni moo koy tooñ di ko yàqataan. Adji bi mu maasee Ousmane Sonko ba léegi. booba sama jëkkër moo nekk ci kër gi ak sama doom jigéen ak sama jànk ak beneen fii ba mu commencé bi léegi añ saar amul jàmm sama jëkkër ñëw na benn jour fekk ma si hôpital bi dama indil añ ne ma waa ndey xadi ma ne ko naam mu ne ma man de naa ma ne ko ah mu ne man aji daf may laaj sonk rek chaque jour mu ne ma sonk moom kañ lay ñëw kañ lay ñëw ah, ko loolu moom kéemaane na di mais sama xel musa xalaat li ci aduna parce que pour man amul fi dëpp li moo tax jour bi Ousmane Sonko di jëw sud beauté pour une séance de massage loolu dafa bett aji saar du lu mu gëmoon waajulu ko woon te itam jàppoon na ni bi mooy sànni tàccoom pour matal mission bi ci la daw woo téléphone yi ko ne na. jour Sonko bi mu la kër gi. Hmm. bi. Hmm. ma mu bi euh, tijji aji moo tijji bi mu tijjee. Mm-hmm. mu dugg mu ne wax xale bi Sonko moo ñëw ma woo fi naa man ko Sonko de ñëw na mu ne ah mu ne xaar ma aji. Mm-hmm. mu woo aji muy jox koo mënu jot. Mm-hmm. bi mu wootee annonce bi benn xale bi jël ko mu ne ko ana aji mu ne aji mu ngi ci di wuy téléphone. mu waa aji nu muy dugalee client bi Sonko si biir cabine bi dem ci ginnaaw di wuy téléphone dama xool lu muy def moom mu dem si ginnaaw mu fekk aji muy wax. naan waa ñëw na nangam nangam xam am na. léegi diggante bi gars yi di taal seen 4 x di daw di ñëw. Sonko maase wu na ba ñibbi fii nag Adji Sarr dafa wax lu dul dëgg ñi ko yónni woon gëmloo leen ni li ngeen ma santoon muy cokkaas Ousmane Sonko ba sëkk ak moom am naa ko alors que dara xewul loolu du suñuy kàddu rapport médical baa ko wax daan ci ñëw parce que bu ñu taxawee tuuti ci personnalité Adji saar xamul lu géej gi riir xamul nu yoon di fonctionner xamul luy procédure pénale maanaam ci complot bi dañu joom ci casting bi actrice bi ñu tànn aayul li mu xam bariwul donc moom jàpp na ni buñ ko yóbbee mu porter plainte rek mission mat na dañ ko jox ay million am génne ko réew mi mu mëne vie de luxe bi mu yàgg rêvé mais malheureusement xamul woon ni viol surtout moom viol bi bind ci plainte am muy dañ maa tëddee loolee ab gynécologue moo koy attesté ci kayit te ñun gëm nañ ni bu gaay xamoon ñi ko yóbboon jour boobu hôpital pour ñu defal ko certificat médical bu ñu xamoon ne aji Sarr waxu leen dëgg jour boobu sekkul ak dara Sonko ni kon du ñu wóolu ab gynécologue wala boog seen beneen tappalekat dañuy jël mu defal leen foo rapport mais Adji Sarr moo leen woon téléphone ne leen kaay leen am naa li ngeen bëggoon gaay jàpp confiance ànd ak moom te wóolu ko dem ak moom hôpital Grand Yoff docteur alfuseni gay set setantal bind ci rapportam ne ndaw si ci waxtu yu muju yi sekul ak benn góor rax ci doli ba mu ñaké ndawam na lem rapport bi ba mu jek dugal ci enveloppe tej batay ñom comploteur yi jël ci won adjissar xamuñu lan mo nekk ci rapport médical bi rapport médical bi nga xamni ni ndeke dafa setal wéccu suman Sonko ci lañ tu dem porter plainte te xamuñu woon waxu leen dëgg daf leen nax la preuve moom Adji Sarr bi mu demee gendarmerie ñu déglu ko mu nekk fa di wax waxi dof enquêteurs yi dem ba xam ne kii dafay tappale Adji Sarr dafa wàññeeku ànd ak Sidi Ahmed Mbaye di laaj ndax du ci am problème. aji Sarr bu ma ko bu ma commandant bi boolee ak moom ne ma demal déglu ko xam nga lan la ma njëkkee wax mu ne ma tonton est-ce que lii duma créer problème. mané ko loolu ngay posé loolu mu ne lii mu ne lii est-ce que sama patron dina ko yëg donc vous vous imaginez nit di porter plainte di la laaj est-ce que patron am dina ko yëg est-ce que vous pensez que nit ko conscient dina wax loolu ensuite au cours des auditions bu ñu commencé auditionner ba pare mais dans toute son audition lu mu wax rek day bëgg a génn di bëgg a laaj ma ne ko fii nag bu ñu commencé dañuy dem ba pare Adjisar, Genna. Après, quand j'ai fini avec Adjissar, euh, il fallait maintenant entendre un de ses amis, le Syrie. Mbaye aussi, il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses. Mougen. Et que capitaine du Guéna Mbaye, il faut parce que nous avons sur une autre affaire. Légui, Mbaye aussi, quand il a fini, il a signé le PV, il revient vers moi, il me dit Est-ce que nous avons un problème Est-ce que nous avons un problème mané ko bu li mais a pas de ici les gens sont impatients. donc on gis Adji Sarr ci ba démé ba xamni mbir yaa sérieux Et mu na ni dafa jappone xajna ci dañ ko ci tejj manam capitaine Touré woyel enquête comme que wa gouvernement bi affaire bi affaire gouvernement bi buñ ci depuis le début ni kon dil bi claté na yag na ñu situer les responsabilités ki ñu tuumaal muy Ousmane Sonko buy balé ngir Yalla mu balé ñu tourner la page coow du jib bal du tak bakkan du rot mais Macky Sall mo dugg ci dossier bi nak ngooy ci melni ku gis yax bu mu wara a joxay ndogal Serigne Bassirou Gueye muy falsifier di jàppaloo ak comploter li mo indi dossier suite Beauté fii. dañoo xam ni dossier bi dara ba dara boo la jeex xamu ci xam ni itam ni xale bu jigéen bi waxul dëgg rapport médical bi ñëw na weddi ko mais ñu continuer di ko dooleel ak jàppale ci ay nar. léegi comme que seeni pexe jeex na ñu ne nañu ubbiwaat coow beneen mbir muy test ADN ci mbir moomee nag la ñuy ñëw ak tappale gi ci nekk. li gaay war a xam mooy ci dossier Adji Sarr lenn moo mënoon tax ñu jibal ay wàllum test mooy gannaaw bam ne dañ ko violé ba noppi ñu dem ci gynécologue gynécologue boobee dëggal ni effectivement dañoo yegg ci kawam bu ñu constaté ni dañoo yegg ci kawam ba noppi ñu relevé ci moom ay toqantalu man yu mbaa leneen lu mel ni deret teflit mbaa karawu naq bàyyi ko ci keneen pour ëllëg bu dossier bi laaj ay mais ci dossier Adji saar lii ñu leen expliqué amu ci te même bu loolu amoon ab rapport médical ne Adji saar sëy nañu ak moom ba médecin bi def ay prélèvement pour éventuellement ay test Ousmane Sonko su ko neexee ni duma def test ADN man dong ndax ci jour boobu aji saar ay góor ko jël si ci guddi gi dem ak moom te dara wóorul ni kenn ci ñooñee ñoo ko tëddee pour porter le crime bi Ousmane Sonko. mais loolu lépp faux débat wax ji wax ji mooy ci certificat médical bi ànd ak dossier Adji Sarr dañ ne dara luy niroog rapport ndaw si def ko ci waxtu yu mujj sàkku bi mu wax ni dañ koo sàkku dara mu ci itam donte nag ñàkk na ndawam waaye médecin bi nee na loolu ca jamono yi maam la yàgg na du démb du barkaati démb li la rapport bi wax te moo àtte dossier bi depuis daaw ñu waroon cee pare ki tumal bu dee da fay top ci yoon mu dem bu ne jéggelé mu balé ta yalla tax donc buñu bayé ba tay nan dañuy defal test Ousmane Sonko ay jaxani kese la ndax amul benen élément buñ koy compareel bu joxé dérétam rek mo yakuna ndax ak état voyu bi ñu jakar lool un président comploteur ay gendarme yu modifié ay PV ay magistrat corrompu yu créé ay ni buñu jotté ci ADN Ousmane Sonko c'est ni propre résultat lañu inventé créé ko jiital procureur Amadou Diouf mu organiser conférence de presse bu reuy reuy wo média yépp né effectivement ay trasu ADN Ousmane Sonko lañu ñu fekk ci prélèvement yi defon daw ca Adji Sarr te loolu kenn du ci mën dara kon ñom batay ci seeni tapalé lañu nek chaque jour ñu indi épisode bu bees ànd ceeg seen i média de propagande ak seen i yu malhonnête jàpp ni ñoo gën a muus ñëpp yooyu nag moo mënatul am Sénégal mbiru test ADN faux débat la pour lëndëmal ak divertir l'opinion kon taxu selu bi tey loolu la woon ñu leen di gërëm di jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngit jëf